basum yaa xew yow yaa ngi béggal xale yi. tonton Labasse. ça va def. ñoo ngi fi. liggéey bi. ça va ci kawam. bàyyi nañ góorgóorlu bu baax bàyyi nañ góorgóorlu bu baax. noonu la. ça va alhamdulilah. Euh, euh, parce que chaque année dañu def suñu anniversaire. dañu yor benn association fii ci koñ bi. léegi ñu ne pourquoi pas ñu tuddee la ko. parce que gis nañ nga mel ci koñ bi. am nga yitte baax la bëgg nga nekk. te daal teraanga àdduna daal te benn bët dañu dañu wan rek loolu la ñu gis te looloo ñu doy ñu ne pourquoi pas ñu tuddee la ko waaw ah. ok taxaw la baat comme ni ko ko waxee rek hmm. dama koy rafetlu bu baax a baax parce que boo gisee tay bi ñu gisee ñu ko tuddee kenn yow lañ koy tuddee dañoo bokk dëkk ci kon bi ñu gis teraanga bi ngay def ci kon bi ñu fekk suñu bët macha allah bëgg nga sa famille euh, moo tax mu nekk acte bu rafet boo xamante ne ñun ñëpp ñoo ko rafetlu moo tax tey ñu ñëw fii daal dañ si wax ak yow. kon bat billaay kii loo wax ci moom doy daa baax gore tabe yëwén yow nee naa la man su ma nekkoon xat damay tëdd nga su ma ni ndax kontaan ci yow dama bëggoon nga nekk sama mak, hmm. yow ba nit ñi di xëccoo Afrique yow xëccoo Afrique hmm. nga ne tay jaw ta jaw ya hmm. ne teur Europe amerique Angleterre Hollande yow daal ya nga tourner fu nekk ci aduna lay ma contente ci yow man bu ma ah, buma bu bu bu bu <laughs> soxna si sa sëba baax soxna si sori ci koñ bi sama téléphone bi nag war naa sonné man boobu ba tey sonné wul ah tamit oh lii daal xaw ma ko man. tey daal loolu nga fi dikkee sama téléphone dafa war a sonné. <laughs> li ma fi dikkee kañ bëri na te nag lobat mi di lakk dëkk bi. bu la loboot gisoon defal la bagage de. gone gi rek mees lay bañ. mees de bu ko romboon fi mu ne nii mu xeenti xam na lii mees la mooy tagle jigéen. géré la. waaw ah, man xanaa mi ci koñ bi. nga xam ne xeetu jigéen moo koy dundal. dégg naa sax ñu naan formation boobu jotagu leen ci. almadi de am na fa bii bii kër piscine kër ba ni ko gone di waxee saat baay saay nu du noonu la <laughs> allahu akbar kër ga de boo fa duggee danga yaakaar ne ay junnee fa ne ndax sori na sori ga nga xamante ne ci biir balaa ngaa jot saal bi rek nobat mi ay mbiram lu sanga sàmba alaar naa loo ci xamut àll bee koy gërëm dégg naa seen kër du fa def dara ci man mii la ñëw te man genre yooyu duma wax ak ñoom ah man de joomi naa man daal ni muy dëppër ñii xaalis bi daal yéem na ma man téléphone bu seer bu mu yore boo demee benn jour nag daa mel naa ko nag bopp xale hmm. li ma gis de. kon de kon ñu ngi ci danger ñu ngi ci danger. yaa ngi toog jàll. moom daa def dañoo am anniversaire bu ñu war a def. Mm. donc ñu ne man lañ man lañ tuddee euh, bis bi donc mu neex ma lool quoi. ça va na ngeen ñu ngi fi ñu ngi si jàmm ñu ngi si jàmm. xale yi. billaay yoo xale yi dañu ngi leen di xool man xale yi bu ñu wàccee 3 heures sax ci la ñuy añ daal di reeraale benn yoon. parce que saako bi moom waaw waaw mais nag. Mm-hmm. Mm. Ah, ah, lu ñu naan de loo ko mën a trop euh, teral grand. Mm. nga teral. nooy moytu sonal. mi nooy moytu. parce que ñi moom ay noonu biir lañ te noonu moom loo ko teral day teral leen waay. <laughs> non ñi hmm? amul benn problème dinaa leen teral. incha allah dañuy daal teral leen daal. Mhm. macha allah. Mhm. maa ma nga li nga def ba am sa alal bi. waaw ah, mais est-ce que jar na ko tamit est que jar na ko ah. ñoom xam nañ ne man aussi nekkuma ma woon. donc maa ngi woon Allemagne ànd ak grand Cheikh Ibrahima Niang nekk fa di liggéey donc bi ñu ñëwee ci la ñu benn société jël fii ñu nekk fa ah donc gis nga kër gi tamit nu mu demee près la banque. ba léegi ñu koy fay pareegu. oto bi tamit oto service la ñoom xam nañ ñoom dee parce que ci koñ bi lañ dëkk quoi. waaw ko gis rek pour xam ko ko amee. Hmm, ñoom xam nañ eh, teral. Hmm. teral lañ bu mu neex. Hmm. ndax noonu moom dañ koy teral bu mu neex. ndax CRA ñi moom dañ leen war a teral moom. non incha allah ñu baax lañ ba pare ñu neex waxtaan lañ dañoo neex waxtaan seen waxtaan moom seen solo boo fa demee da ngay réewum dëgg yàlla. ngeen gën a sàmm seen xale yi rek waaye ñu koy sàcc xam mais garaawul amul benn problème donc ñëw ngeen ci moment bi ngeen war a ñëw voilà léegi bu ngeen demee li ngeen war a def ci anniversaire bi yëpp jaru ngeen di dem feneen nag. voilà li ngeen war a def ci bis bi yëpp bind leen ko andil ma voilà li ci war a def yëpp dinaa ko ci def incha allah y' a pas de souci amul benn problème ah. ok ok ñoo far. waaye dëgg la. da nga baax. ñoo far. franchement ni moom bett ñu woon ci yow. moo tax ñu ñëw. dëgg mm-hmm. yàlla. Mm-hmm. ah bu la kenn gëm loo ni kontaanu ñu. non du tout sama suñu kontaan daal ëpp na ci yow. ndax xam naa ne mm-hmm. yaay ak papa tam bu ñu jógee lii. ah seen xol dina bu naan daal tamit. man de bu ma ne woon xaar nii dama lay jox sama bopp rek. nga misiwee ma. <laughs>